li ñu wax originalité tey loolu lañu am tey man modératrice la mais bu ngeen xoolee table bi xam ni ñii ñoo jël seen décision bopp ñoom ñëpp ànd ni du kenn Maodo rek la ñuy jiital fii ay femme de valeur rek ñoo nekk ci biir saal bi kenn mënul lim kenn xol yëpp a sedd tey Maodo xolam sedd na ñun ñuy toog suñu ay xol sedd nañu fii nag façon jigéen bu nekk mi ngi ci biir saal bi Maodo yëgul tinul nee naa ko ba tàyyi mbay ñëw mun ma fenn laa dul ñëw te du fi ñëw te duñ ko gis ndax yéen jël décision bopp seen décision bopp ni da ngeen di jël Maodo porté ko Maodo nag toog di répété lu mu def sax def naa yàq wax la wax ci benn rek la Maodo rek la Maodo rek la macha allah mbay lu ne def na ko booy wut social rek yamal ci moom ñun dooruñu imaam yi ñoo njëkk a jukk def li ñuy def dikk nii du kenn. ndax ni ko euh, El Hadj lime léegi Ousseynou nee na Maodo lu nekk loxo mi ngi ci biir te dëgg la Maodo 2009 ba léegi Maodo ngi def ci dëkk bi waa léegi nag kuy waa Liyaan boobu sa dëkk dafa tëggul ñun nag yegg si nañ te taxaw nañu ñun jigéen ñi nga xamante ni caabi lañ tuddee seen bopp suñu bopp ñun ñoo àndandoo ñun ñëpp fas yéene jël caabi ji jox ko Maodo Malick Mbaye nii du kenn Maodo rekk la te incha allahu rabbi au soir. bi 23 janvier 2022 bugg nañ ñun ñëpp ñu gunge Maodo Malick teg ko si maire bi lool la ñuy ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla yeggale ma ni ku am fas fas su gattax di la togg boo amee naaru góor kenn waxatu ko Maodo jigéen ñi rek la bëgg Maodo bëggul kenn ku dul jigéen ñi Maodo góor ñi la bëgg Maodo jeunes la bëgg Maodo bëggul lu dul Cees kon nag ñun ñëpp nañu àndandoo nii ñu ko defee ngan la waaye nañu takku bu kenn dellu gannaaw nañ leen takku àndandoo jàppale Maodo ànd ak Maodo jox ko maire bi ndax Maodo defar deuk bi rek moko ko tax ñun jigen ñi fi euh dañu créer ben convergence muy clé convergence bi moy femme convergence des leaders femmes de Thiès ñi ay jigen ño xamantene ne ñun xaaruñu dara ci politique. ay jigen ño xamne ken kenn mësuñu gis ci ben langue politique mën naa ne euh, ñu manko de ben bëgg-bëgg bokku ben ben yéene bu yàgg boo xamantene ku ci nekk yaa occasion pour nga ko présenter Maodo Malick Mbaye en tant que maire de la ville de Thiès ñun nag ay jigéen lañu yoo xamante ne ku ci nekk yaa ngi seet comme ni euh, Ami Ba ci ay infirmière amna ci ay sage femme amna ci ay commerçante amna ci ay jàngalekat am ci ay euh, femme au foyer amna ci ay étudiante amna ci ay ño xamné ñu ngi chômé amna ci ay femmes de développement amna ci ay badjanu gox yooyu j'en passe donc kon ku ci nekk ñoo ngi ci yaa ngi ci sa ruq di liggéey sa liggéey xaaroo dara ci politique comme ni ma ko waxee léegi mais ñu Maodo Malick mbay ku ci nekk amoon yéene jàppale ko ndax lan parce que Maodo Malick Mbaye dañu bokk ak moom nag cees mu nekk doomu Thiès nag bëgg Thiès lool ñu gis aussi action yi muy def ci biir dëkk bi mu am ñu ci bari ñoo xamante ne séq na ko ñoom personnellement fii ci salle bi bu ñu ko doon compter duñ fi jóge ku mu ko séqalul personnellement yaa ngi toog di gis mu koy def ci biir dëkk bi nga amoon yéene jàppale ko Maodo Malick mbay moo ngi ci social bi boo nee social bi sa très dama koy tënk rek ndax Maodo Malick mbay diggante dëkkandoo ak dëkkandoo daf ciy dox lu bari Maodo Malick mbay mu ngi ci étudiants yi di leen may ay bourse ñuy génn Maodo maalik Mbaye ñu ngi ci xale yu jigéen yi bàyyi jàng yi di leen fayal ay formation mi ngi ci xale yu góor yi di leen fayal ay formation Maodo Malick mi ngi ci hôpitaux yi Maodo maalik mi ngi ci église yi Maodo Malick mi ngi ci jàkka yi Maodo Malick mi ngi ci sport bi pas plus tard que année bii rek ci suñu final ONCAV bi moom la ñu ko parrainé parce que moom moo waral sax nawetaan yi ren am Thiès euh, réellement donc ñu cërale ko loolu je pense que nous avons jàppale nous nous maire bi ndax mi rôle maire maire kon suñu xel day dal ci donc comme nous ma ko nous clé ñu convergence nous xamante nous dañu libre nous kenn woowuñu kenn fayuñu kenn propaganduñu ku ñëwal sa bopp ñu bokk benn yéene bi mel ni comme sii dañu gisee bokk benn yéene bi rek muy teg Maodo Malick ci ville de Thiès parce que ñun nag Thiès la ñu dëkk Thiès rek la ñu am te du yàgg ba ñu génn Thiès di dem feneen donc kuy defar suñu dëkk bi la ñuy wër te loolu dañ ko gis ci Maodo Malick Mbaye kon ñuy teg Maodo Malick Mbaye di ko porte tey solennellement devant Thiès Yip, devant Thiès yep la avons koy porter tay def candidat pour la mairie de la ville de Thiès 2012 donc nous may lan euh, président Macky Sall solennellement ñukoy je suis nga chef de la grande mouvance présidentielle je suis nga chef de la grande euh, coalition Je suis le le petit ci je lay mu ñu ci suñu choix bi di Mbaye ndax ndax suñu ñu ñu ñu au soir du 23 janvier 2012 suñu clé 2022 ouais 2022 2022 je m'excuse Nous bëgg suñu clé boobu ñu naan caabi moom lañ ko bëggale que buntu yi installé ko ci jamm inshallah ndax xam nañ ne ak mawdo malik mbay dinañu am nous bëgg ci Thiès ak dinañu am niñu bëgg ndax comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñun cees rek la ñu am cees rek la ñu bëgg te kuy defar cees rek la ñuy wër